بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى جاءه اليقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أه، مبكي جلتي نجي سنتي الله سبحانه وتعالى مميلو أكشنت ديكو دمبنيكو ديكو جيغلو سنو بكار دي يسل سنو توب di sédene amul kenn wala lenn lu nu war a jaamu ci dëgg jaamu ga di ñu jural njëriñ ñàkk jaamu ga di ñu jural lor ko dul yàlla subhanahu wa ta'ala di seede ne moo yónni ndawam lu jubla muhammad ibn abdillah salawaatu rabbi wa salaamuhu alayh xanaa di am mbégte lool rek ci dajeeg am di jàmm yi ak wëllëre yi ak soppe yi ci yàlla ci sunu émission bi nga xamante ne ñu ngi ko tuddee at tawxidu awwala mooy pas-pas moo war a jiitu waaye di ñaanal di gërëm e, mbokk yi nga xamante ne ñoom ñooy jamcete ahlul qur'an al karim bu faas sure nga xamante ne ci seen jàppandal ci seen ubbeeku la sabab bii amee ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla na nu yàlla boole defal ñu tawfiq te jéego gi ñu def te dara taxul ñu def ko ludul bay seen waar ci réew mi waaye bay seen waar ci lislaam wi di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla def fi mawazini xasanaatihim yawma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim seen mbokk Mouhamed Ibrahim Kane eh, bëgg nafar ci ay kanami sëriñam ci ay kanami eh, kilifaam yenn tomb yi nga xamante ne ci ñoom lan ko jàngee woon waaye di ko tari ci seen kanam su ko defee ñu ñuy xoolalaat la ca jubak la ca jara euh, jubbanti ni ngeen ko déggee waxtaan wi wala fàttalante bi mu ngi aju ci wàllu wéetal yàlla mbokk yi mu ngi aju ci wàllu tawxid mu ngi aju ci wàllu aqida sula la neexee nga ne mu ngi aju ci wàllu la ilaha illa allah eh, mbokk yi aqida mooy pas-pas lan la fas li ñuy fas moo di tawxid tawxid ñu ko jëlee ci kàddug waxada yuwaxidu tawxidan ida jala shay'a waxida mooy nga jël mbir boole ko mu nekk benn wala nga def mbir mu nekk benn fa la ñu jëlee tawxid tawxid mooy wéetal yàlla subhaanahu wa taala wéetal ko ci ay turam wéetal ko ci ay jëfam waaye it wéetal ko ci jëf yi nga xamante ne moom la digal jaam yi ñu defal ko ko muy tawxidul uluhiya di tawxidul rububiya di tawxidul asmaai wa sifaat waaye insha allahu tabaraka wa taala tey sunu jotaay muqaddima lay doon laytaay lay doon ci bunt bii nga xamante ne moo di tawxid jiitu lépp mooy nanu xam ne sunu borom yàlla subhaanahu wa taala sàkku ñu ngir caaxaan ba lu rëy moo tax mu indi ñu ci kaw suuf si jubluwaay bu rëy moo tax mu indi ñu waaye bit bu leer naññ moo tax mu indi ñu te moo di jaamu ko wéetal ko moo sunu borom yàlla subhaanahu wa wax ci alqur'aan alkarim acuudu billahi min alshaytaani alrajim وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون yàlla mu ne sàkkewu ma nit ak jinne lu dul benn jubluwaay jubluwaay woo wan jubluwaay la mu ne moo di illa liyaabuduun lu dul ñu jaamu ma ku mel ne ibnu abbas mu ne illa li yaabuduun li muy firi mooy illa li yuwaxiduuni lu dul ñu wéetal ma ndaxte jaamu yàlla su lamboowul wéetal yàlla ca yang koy defal ci ay jaamu daanaka jaamu googu ak coono lay jural boromam yàlla nan ci yàlla musal kon sunuy jaamu yàlla mu bari mu néew ñu ngi ñaan yàlla yàlla nanu yàlla jàppale ba sunuy jaamu yàlla li ci bëreeg li ci néew yàlla na yàlla dongu tax waaye it lépp luñ ciy jëf yàlla bu ñu juyoog njàngalinu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi lii di tawxiid di wéetal yàlla moom mooy awwalu daawati rusul moo doon programme bu jiitu ci programme yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ci lañ daan njëkk tarkiis ci lañ daan njëkk di bàyyi xel ci lañ daan yar nit ñi ndax xam gi ñu xam ne cosaanal mbir yi mooy pas-pas pas-pas su xasee ba baax la ca kawam lépp day baax pas-pas ci wéetal yàlla xam li yàlla moom ci yow nga koy defal te di ko defal moom dong ak nem ko bëggee loolu dafa mel ne mooy fondement wu tabax xam ngeen ne fondement su baaxee tabax wa lu mu gudd ci kaw du ci yàq dara waaye su lu tege ci kawam du mën a lan du mën a baax kon ba loolu moo tax lii di tawxid moo doon programme yonent yi alayhimu salaatu wa salaam moo tax yonent yëpp sunu borom yàlla subhaanahu wa ta'ala di ñu nettali ci alquran alkarim ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم min ilahin غيره yonent yàlla nuux nga xamante ne ci yonent yu jiitu yi la yàlla mu ne ca dëgg-dëgg yónni nanu yonent yàlla nuux ci aw nitam lan la leen wax yaa qawmi ee yéen samaw nit ee yéen samay mbokk waay waay ubudu llaha jaamu leen yàlla wéetal leen yàlla te ngeen yëg ne kat maalakum min ilahin xayru amu leen keneen ku ngeen war a jaamu ci dëgg kudul sunu borom yàlla subhaanahu wa taala lii di nga ko fekk ca suratul araf ci laaya 59 lu mel noonu la digaloon yonenti yàlla huut alayhi salaatu wassalaam ubudu llaha ma lakum min ilahin xayru même ca araf noonu nga koy fekkee lu mel noonu la Saalix waxoon aw mbokkam lu mel noonu la Shuayb waxoon ay mbokkam lu tax indaatuma aaya yi même ni aaya yi tëroo noonu la ko yàlla indi waaw sunu borom yàlla subhaanahu wa taala tënkal ñu programme boobu ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ca naxl aaya 36 mu ne ca dëgg-dëgg yónni na man borom bi subhaanahu wa taala yàlla nag su ne yónni naa day wane kàttanam ak man-manam ak la nga xamante ne moom mooy yaatu nguuram mu ne ca dëgg-dëgg yónni na ci bépp xeet rasulan ab yonent lan moo doon jubluwaay yonent bi moo di an ibudu llaha nanu wéetal yàlla nanu jaamu yàlla te teg ko ci wéetal wajtanibu taaxuut nañu moytu li nga xamante ne moom mooy lan mooy jaamu xërëm nañu moytu jël li yàlla moom di ko jox keneen ku dul yàlla yàlla wax ba tey ci suratul anbiya di wax ak sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam di ko nettali jaar jaaru mbokkam yu baax ya di yonente ya alayhimu salaatu wassalaam وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك أي محمد صلى الله عليه وسلم masuma yónni yonent ci yonent yi la fi jiitu woon illaa lu ne nuuxi ilayhi la leen waxyu la ma leen digal ngir ñu nekkee ko moo di ñu xamal seen aw nit ne la ilaha annahu lay dëgg kat laa ilaha illa ana amul kenn ku nu war a jaamu ci dëgg ku dul man yàlla kon nag faabuduun nañ ma lan nañ ma jaamu nañ ma wéetal mbokk yi haadihi daawatu jamici rusul kon li ñuy njëkk tegtaloo ci mbir mi mooy lii de moo nekkoon programme yonent yi bal sax ci lii la ñu doon tàmbalee seenug daawa gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yónni gi ko yàlla yónni nekk na màkka diirug yónnent gi ñaar fukki at ak ñett la waaye daanaka fukki at yeeg ñett yëpp ci màkk la ko def ci lan ngir fexe ba nit ñi am la ilaha illa allah ngir fexe ba pas-pasu nit ñi lan wér moo tax mu leen daan wax ne quulu laa ilaha illa allahu tuflixu ne leen laa ilaha illa allah su ngeen bëggee texe waaye ànd ak loolu bokkaalekat yi dañ daan bañ ndaxte bu ñu fàtte ne lii cosaan ci doomu aadama moom mooy wéetal yàlla sunu maam aadama alayhi salaatu wassalaam boole kaag njabootam Adama meññ la nga xamante ne mooy ak njaboot lam leen yar moom mooy wéetal yàlla wéetal yàlla googu moom moo fi nekkoon moo tax yàlla di wax ci alquran kaana annaasu ummatan waxidatan fa baasa allahu annabiyiina mubashiriina wa mundirin mu ne kaana naasu nit ñi nekkoon nañu ummatan waaxida benn xeet ci wéetal yàlla ummatan waaxida benn xeet ci nangul yàlla ummatan waaxida benn xeet ci eh, ànd am pas-pasu wér ànd ne ay bàkkaar amoon na tooñ amoon na moo tax gis diggante qaabil ak haabil jafe-jafe am na seen diggante baray am sax kon feebaru kiñaan am na feebaru mbañeel commencé na feeñ ci société bi feebaru rey am waaye ànd ak loolu ñoom ñëpp yàlla nee na benn xeet lañu ci tawxid soo demee ci tafasiru salaf ñu ne la ummatan waxidatan ala al akida xeet lañu woo xamante ne ñoom ñëpp ànd dëppoo ci ne kat jaamu yàlla yi yàlla dongu leen ko war a defal lépp loo xamante ne mënee su koo sàkku ci kenn ku dul yàlla loolee amoo droit boole ak kenn ci lii la ñu nekkoon sunu borom yàlla subhanahu wa taala ginnaaw gi nag ñu wuute waaw bi ñu wuutee ci lan la ñu wuute moom mooy bokkaale commencé di tàbbi ci xeet wi moo tax ibnu abbas ak li gën a bëri ci salaful umma mu ne diggante aadama ak nuux am na lu tolloog ashrata quruun di fukki siècle di junniy at ñoom ñëpp ci tawxid la ñu nekkoon waaye nag bi bokkaale commencé am naka la bokkaale commencé am mu ngi tàmbalee ci li ñu tuddee alxuluw muy ëppal ci ay jëmm yoo xamante ne yu baax lañu yu taxawe li ñu war a taxawe gis nga isa alayhi salaatu wassalaam yonante la tànneefu yàlla la ñëw na joxe rôlam joxe maanaam message am ba dem waaye ña ko topp ëppal ci moom ba ne doomu yàlla subhaanaka rabbi hada buhtaanun azim kàddu gi bi nit njëkkee wax sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne takaadu samaawaatu yatafattarn mu ne asamaan si tuutee desoon mu xar wa tanshaqu l ard montagne yi suuf si tuusee tuutee desoon mu lan mu daadi lan mu daadi xar wa taxirru l jibaalu hadda montagne yi ñoom pënd moo tuutee desoon ñu nekk pënd lan moo ko waral yàlla mu ne an daaw lirrahmani walada bi nit amee fi taxaw na yàlla am na doom kon gis nga ndekete bokkaale lii di adduna bi kadduy bokkaale day jeexit ci ñoom kadduy bokkaale da leen di tiital kadduy bokkaale day tax ñuy rëf-rëfi ngir ñoom xam gi ñu xam yàlla ak màggal gi ñuy màggal yàlla moo yàlla di ci alquran wa in min cheyin illa yusabbihu bi hamdi amul lenn looy gis lu dul ne day màggal yàlla di ko bàkk di ko kañ waaye nag walakin la tas la tafqahuuna tasbihahum waaye jafe-jafe mooy li ëpp ci nit ñi xamuñu yooyee naka la ñuy sàbbaale yàlla naka la ñu gëmee yàlla naka la bëggee yàlla xoolal hudhud di picc yonenti yàlla suleymaan jékki-jékki gisu ko mu ne maali laa aral hudhuda am kaana min alxaibin waaw lu ma dal waaw hudhud wala dafa dem yoonam yàlla mu ne ñu jékki rek hudhud daa di ñëw bi mu ñëwee lan la ko wax da ko ne man de maa ngi jóge dëkk bu tudd saba waaye li gën a yéeme yow kilifa gi moo di inni wajadtuha ah wajadtu mraatan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay fekk naa fa buur boo xamante ne buur bu jigéen la moo leen jiite waaye li ma jaaxal moo di dama leen fekk yasjuduuna li shamsi min dunillah kon ndekete picc bi xam na ne waruñoo waruñoo lan sujjootel lan waruñoo jaamu li nga xamante ne mooy jant bi yasjuduuna li shamsi min dunillah bàyyi fi yàlla picc bi nee leen nee Suleymaan wa zayyana lahum sheytaanu amalahum kon gis nga mbokk yi noonu la adduna bi di doxee dem ba mu yàgg ay nit ñu baax ñu yàlla jox cër ay nit ñu baax ñu yàlla jox xam-xam ay nit ñu baax ñu yàlla jox li nga xamante ne mooy teraangay diine taxaw di jàngale jëme ci tawxid bokk na ci jëmm yu baax yooyu kilifa googu ñuy tuddee wadd ak ki ñuy tuddee suwaa ak ci ñuy tuddee Yaguus ak ki ñuy tuddee Yaquuq ak Nasr ñu am taxawaay wu ama am solo ci jàngale tawxiid waaye ànd ak loolu bi nit ñi ñëwee seen ginnaaw daal di ëppal ci ñoom loolu jural leen seen tawxiid yàqu yàlla yónni yonent nuux ngir mu ñëw jéem a régler mbir moomu ci loolu nag inchaa allah ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla nu yàlla defal tawfiq suñu dajawaatee ñëw xool naka la nuux def ak mbokkam ya اك رزلت على امتنيوم واخر دعوانا ان الحمد لله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته